asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñoo ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo dimanche bu jot ci émission bu mag bii nu tuddee tànneef tànneef nag tànnaat na macha allah kii mu tànn mooy doomu Taïba Ndiaye dëkk ba Matar Mamour Ndiaye dëkk ca dëkk boobu daan nag dëgg dëgg nag ci la tànneef nag tàbbi na seeti nag président Aliou ñu raw ñu war a waxtaani nag lu baree bari waaye rawatina collectivité locale ci bés yi mag yi nag bu bii nag daf ci bokk moo tax tey daal ñu déplacé wu nag pour waxtaan ak moom laaji ale maa ngi lay nuyu di la sargal di la ndokkeel di la jox sa wàccuwaay eh, fa tabarakallah bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, sant suñuy wayjur ñaanal kilifa diine yu baax yi nga xam ni ñoo ngànk Sénégal yëpp fa tabarakallah eh, Mamadou Mbaye Garmi ñoo ngi lay nuyu di la ziar yóbbante la nuyoo ci kilifa kër gi le président Youssou Ndour ak eh, équipe bépp yi nga xam ni mi ngi liggéey ci groupe TFM Euh, di kontaan bu baax ci invitation bi sawar lool nag euh, ci émission tànneef bi wax la fi nu jaar euh, ci tàmbale ca Taïba Ndiaye liggéey ci des assurance nga xëy moo doon suñu métier lem ci développement local décentralisation def ci lu mat fanweeri at ak ñaar ñëw ci wàllu politique également àndoon ak président Abdou Diouf. Mm. ànd ak président Abdoulaye Wade ba ànd ak président Macky Sall. Euh, ba fii nu toll tey. jërëjëf Aliou defe naa ni xam naa ni parcours bi tubaarkàlla am na solo lool waaye Aliou ñi la mel ni ci Taïba ba njaay ak ak lan mooy Taïba Ndiaye dëkk Taïba Ndiaye mi ngi nekk ci eh, diggante Tivaouane ak Mboro. 12 euh, kilomètres la diggam ak Tivaouane. Euh, mag ñu baax ñu ko santoon wax nga ko léegi suñu maam Matar Mamoud Ndiaye. Euh, ñoo ko santoon tey boobu ba léegi nag Taïba Ndiaye lay sant. àndoon nag kilifa yu mag ñi nekk Cambérène ñi nekk Ndiob ñi nekk Loyenne ñi nekk Paleen fa tabarakallah mm. ñi nekk Ngéyeen Euh, bokk googu nag nga xam ni euh, moo samp Taïba ba mm. ba léegi mooy dox ndax mun nañ ni Taïba néew na euh, commune bu mel ni moom mm. ndax waxuma Taïba rek waaye fanweeri dëkk ak juróom yi ko seq yëpp daanaka maam yi dañuy kii day jóge fii Taïba sañ Taïba Njaay Taïba Mbay ba Xab mm. sañ ci ay dëkk dëkk daan donc ñëpp ay bokk lañu loolu moo tax képp koo xam ne nekk nga fa njiit rek am nga sasu rëy ndax mag ñi dañoo liggéeyoon démb fa tabarakallah maa ngi lay wax sànq ni la Taïba Ndiaye chance bi mu njëkk a am mag ñu baax ñu mel ni suñu maam Matar Sob amoon gis-gis ca njàlbeen 1949 la dox pour Taïba Ndiaye am école 1949 lu bëree bëri Taïba Ndiaye rawee ko loolu ci la bokk ndax macha allah ci côté njàng bi eh, ndono loolu nu am nag eh, jàpp ci mag ñi xam naa daanu ñëwaat léegi ci jaar jaar gi ndax sunu école primaire foofu lañ ko defe tey ba Njaay la ñu jàkkee dugg jëkk euh, dugg daara euh, ba am juróom-ñeenti at soog a dugg école continuer nag di dem daara di di di di taxani di bu fajaree nu dem ca daara ja ba huit nu dem jàngi bu guddee ñu dem ca daara ja euh, fa tabaarkalla ci loolu la ñu mag ngi nàmptaloon nu am chance itam suñu wéyjur bu jigéen suñu yaay Adama Rock photo ma nga ne la ngay seen doon soxna su baax euh, tal nu bu baax d'abord ci jàng ak liggéey ak it fonk suñu wayjur di suñu pap moom buñ doon ñëw ci moom ndax ndakaaru la jóge ñëw Taïba Ndiaye macha allah ci wàllu liggéey euh, yanu kër ga yëpp ci liggéey donc bu ñu jàngee Taïba Ndiaye ba entrée en sixième 61 euh, ñu jëmul lycée Van Vollenhoven euh, mooy Lamine Gueye tey mm. te bu njëkk Lamine Gueye euh, élèves yi gën a am moyenne ci lañ leen di yóbbu mm. ñu amoon juróom yu jógee Taïba Ndiaye ñëw lycée lamin Gueye ñu jàng fa am bac mm. ñu am baccalauréat dem université de Dakar Euh, jàng fa 69 ba 1974. ñu mel ni Djibo Ka Aïda Croix docteur Alioune Sarr ñun ñoo bokkoon promotion. Ah. nekkoon nag internat. internat internat booba famille la. ndeysaan te yàlla def na ba léegi nag tàggoowuñu. dañuy def création di dox di waxtaan. Mm. Euh, suñu papa yi nekkoon premier président commune rurale Taïba Ndiaye 72. bi réforme yi Senghor ba réformé ko. 1972 mm. moo jëkk a nekk président commune rurale. ñu bi ñuy nekk élève nekk lycée étudiant yàlla xiir nu ci sport ak développement ñu jiite association sportive et culturelle ba forage bi Taïba Ndiaye jëkk am bi ñu koy wut dans les années quatre-vingt-sept booba nekkul sax xalaatuñ sax politique mm. ci association bi lañ ko doxale euh, bi sum papa bàyyee communauté rurale yi nag dëkk ba jaxasoo ñi nekk euh, PS ñi nekk PDS euh, soo demee ci benn kër du ñu tuddante 1987 euh, 88 son papa ni ma ak son El Hadj Ngalgu Ndiaye da nga war a ñëw euh, jàpp ci politique bi ndax mm. politique gu léegi bi dafa laaj xam-xam ma gàntal ko. Mm. Euh, wante 1990 bi nga xamee ni jóge naa assurance nationale ma ma nangu dugg si ci politique ñu daje ci penc ma daanaka dama waatoon ni leen lépp lu ma am. te bokkuma ko yéen yàlla bu ma ko am euh, bi ma ci duggit jafe woon na lool ndax dëkk ba amul dara amul courant amul ndox amul yoon euh, bi may duggee nekk cadre parce que wax naa la léegi bi ma jógee université en 74 dama dem Yaoundé euh, dafa ñaari at nekk ingénieur en assurance ñëw pendant 15 ans fukki at ak juróom ma liggéey ci assurance nekk Capion assurance nekk Laxar nekk directeur général national d'assurance pendant une dizaine d'années président directeur général euh, boole Soram Soseca ñeenti société yëpp maa yoroon direction ba 90 laa fa jógee bi ma jógee ci assurance nag ma ne ah kon léegi war naa mën a dugg ci politique bi. waaw léegi xam naa ne balaa ngaa génn ci assurance assurance moom loolu mën a apporter ci assurance xam nga assurance dafa nekk loo xam ne lii lu am solo lu ci réew. assurance dafa am solo te euh, wax dëgg yàlla. xam nga dañu jàpp rek ni assurance euh, automobile rek boo amulee auto rek doo def assurance te assurance li ci ëpp solo mooy euh, automobile dëgg la responsabilité bu accident amee waaye nit ki boppam kenn ku ne da nga war a am assurance assuré sa bopp ndax ndogal day am accident day am mm. ah faatu day am mm. fàggandiku googu nag nun xaw nañ cee dellu ginnaaw bu baax a baax a baax rawatina nag ci côté développement mm. ndax même mbay mii am na assurance agricole boo xam ni am na wante biñ ko créer léegi depuis na fukki at ah, mel na ni nag mi ngi dox waaye gën na war a dox. Mm. ndax euh, béykat bay dañuy bay du ñu am dara mbaa picc yi ñëw lekk ko euh, fekk lem nañu bor amuñu assurance euh, duñ mën a fay seen bor état mooy obligé mm. di leen fayal te loolu yëpp. dafa laaj nag vraiment li li xew ci réew yu mag yi mm. risque boobu ñu mën ko assurer donc euh, bañ a yem ci assurance automobile rek mais di kër yi gis nga lakk yi marché yi euh, bis bu nekk marché yi lakk te itam assurance cantine boo loo xëy matul vingt mille francs nga yàqal nit ay milliards loolu dama defee ni information bi moo des mais dafa war sax tey ñu am assurance yoo xëy dañ koy rendre obligatoire comme ni ñu defee oto nga xëy kuy dawal oto war nga am assurance tey ku samp cantine war nga am assurance ñu rendre ko obligatoire mm. comme ni xale yi dee ci géej gi duñ yore gilet sauvetage. loolu dañ ko war a assurance obligatoire. ba ku dee ci géej gi bàyyi njaboot sa njaboot am am lu ñu sutur la. nit ki itam accident yi bari na. te da ngay nekk ndaw génn àdduna euh, sa njaboot du ñu jàpp ci dara. fekk amuloo benn sécurité te loolu yëpp dañ ko war a assurer loolu nag vraiment ay ay taxawal occasion ñu euh, encourager nos partenaires assureurs mm. les intermédiaires ndax man non seulement nekkoon naa ci mais ba léegi mm. bàyyeegu ma ndax maa ngi yor sama cabinet d'assurance xam nga kenn du bàyyi sa métier te depuis trent ans mm. Siccar assurance ci laa nekk te loolu nag vraiment noo ngi ciy santaat yàlla bu baax pour que vraiment euh, nu gën a joxaat place assurance ak banque daal mooy doxal réew jërëjëf euh, mbokku tànneef yéen a dégg nag euh, ale fi mu jaar ba dugg ci wàllu assureur mu nekk loo xam ne lii lu am solo la mais président ali defe naa ni donn benn métier ci sa waajur bi nga koy donn boo fekk ne yow xamoon nga ne lii da nga ko def walla walla wala daal yàlla yàlla daal moo la ca moo la ca moo la ca dotal ba ba indi la ci métier bi nga xam ne nii moom la sa waajur doon def. waaw sama papa donc moo jëkkoon nekk euh, président communauté rurale comme ni ma la wax sànq hmm. euh, euh, émission bi du tànneef. Hmm. waaye dañu bëgg a fàttali xale yi. Hmm. éducation bi nu jëlee ci mag ñi. ci mag ñi wax naa léegi nu sunu yaay dañoo xiirtal ci jàng xiirtal nu ci liggéey. xiirtal nu également nu jàppale sunu waajur suñu papa lu ñu mën. bi ñuy nekk xale. sum papa dafa bëggoon tool loo ko mën a defal ci àddina te nawet jot demoo tool rek hmm. euh, euh, loolu kontaanu ci hmm. man ba mag amee euh, bourse laa ko commencé jàppale hmm. waaye lu man doon bu nawet jotee damay bàyyi lépp ñëw ànd ak surga yi suba ba ngoon pour nettali la rek su ma soxna maa ngi ko takk 1973 suma aawo fekk suma yaay kër gi diis lu mat juróom-ñaari surga ñu ngi fi. Eh, suma soxna ñëw aw ko ci kër gi. Hmm. awaale ay wu jëm kër gi yëpp mu gàddu ko te booba dëkk ba ne metti na. Hmm. ndax amul yoon amul courant amul ndox amul dara. Eh, eh, ma takk ko nekk troisième année. waaw liggéeyu ma bu bourse bu ay quarante mille francs laa doon a mais loolu moo moo moo tax moom it wax dëgg yàlla mu mu mission mu doxal ko ba mu mat sëkk. muy sama sama premier aaw di Fama Ndiaye. papaam bi ma ko may. bi ma bi ma demee eh, moom ma ko nettali de. nee na daf ma daan romb sama tool papa. su daan dem tool sama papa dafa tool bu tudd Louga. dama daan buy xëy romb ma muy xëy ànd ak surga yi liggéey ma war fas mbaa may ma su ngoonee mu romb ma ci tool yi. Mm. nee bi ma ñëwee 73 eh, déclaré ko. fekk am na am mbokk yu waxoon ba pare. waaye ne aale mi ma xam. ma ni papaam li mu doon sama xarit di laaj bi ma war jamaloo waaye mii nga xëy dama ko yàgg naw yàgg koo njaanal ndax li ma ko daan romb ca tool ya kii lu mu bëgg ci sama njaboot day yomb kon nag pour diir que ni euh, fa ngay defe lu baax euh, fa nga koy récolter doo ko fekk te loolu nag leçon la boo xam ne danu war a euh, góorlu ba nemmanku suñu wayjur wax naa la man ba ma yore bourse laa yor sama kër papa li muy liggéey yëpp naa vingt cinq ans. sama kër papa dama ko te nag commerçant la woon ku ne xam ni mënoon na ko. sama yaay kazalika maa ko yoreel këram lépp maa daan jël charge yi tabaski yëpp maa ko daan jënd sumay may rakk yi topp ci man. ku ci dul Ablaye mi topp ci man ñëpp maa leen jël en charge yóbbu leen France ñu jàngi. ñi nekk ingénieur ñi nekk ay docteur. Mm. fay leen seen billet seen njàng ba kër ñu ñëw. Ah, waaye loolu itam nag fay dañ ma ko ndax tey waxuma samay samay doomi bopp mais sama rakk yooyu rek hmm. li ñu may jàppale mot na salaire yi ma doon am te donc du jàppale weer wu nekk lépp million lañ may jox par weer pour te dire que ni euh, vraiment fa ngay defee lu baax hmm. euh, ak fa muy ñëwee hmm. euh, doo ko foog donc sama rakk yooyu mat nañu lu mat juróom juróom benn ak sama benn jigéen suma rakk di nogay moom it macha allah ndax moom rek moo des ca kër ga ma ngi sëy ci biir dëkk ba waaye moom it wax dëgg yàlla mooy yore puusam di rab di di di politique bi sax moom nu ciitu mm. jàppale ñu te ba tey yàlla mu def mu mu jëm mag dina koy Lo maa ngi koy sant. Euh, di ko gërëm. Mm. mais vraiment waxuma samay njaboot sumay rakk. ak sunu mag bi nga xam ni yàlla def na euh, génn àdduna El njagaloo Ndiagalo. moom bi su bi muy dund suñu papa moom la ñu boole loon. tey nag yàlla def na dem na waaye rakk yitam fañ tegoon suñu wayjur yi foofa lañ ma teg sama dara du tardé eh, ndax ñoom seen tawaay loolu nag occasion la ñu sant leen ah bi ma santee suma awee caxawaayam nag sant suma eh, ñaareel di soxna maam pharmacie moom it 1983 87 eh, plutôt laa ko takk di taawal al amin boobu maa ngi Dakar maa ngi ci politique bi ah kër ga fële tay ba so aaw bi yor na ko waaye fii itam matale na Euh, ci biir activité nag. alhamdulilah euh, way juram mm, wax na Sénégal yëpp ni alelo mooy suma taw di Serigne Abdou Aziz Amin. Euh, macha allah moom Serigne Mansour ak Cheikh. ah mm. ñooy samay goro di samay bàyyi doon samay kilifa. dëgg la moom it matale na ci biir activité. politique bii nuy def. Mm. lépp lu nu ci yëkkati. daraam du ko fekkee. Serigne Abdou mi bu campagne Moussa ñëw ay millions lay jël jox ma. ni ma bu jeexee nga delsi jëli otoom jox ma jël njabootam booleeg ma ah loolu nag vraiment occasion la ñu sant ko yàlla bari na réussite yoo xëy buñ ko buñ ko amee hmm. ba ba yëg si fi mu yëg si e mun naa ne jàppale boobu ci la bokk ak it ñaanu way jur yi ñaanu wër ji maa ngi gis le président Diomaye ci muy soog a toog témoignage yi way juram def hmm. sama xel dellu ci e, li ma la wax ni way jur ñaanam kontaanam Eh, eh, kenn mënu ko fay. dëgg la suma yaay ku ne xam na ni liggéeyal na way juram. suma maam Ousmane tudde na ko doom. ndeysaan papaam tuddee na ko doom may ko njëkke skay wujju yaayam bu may ko njëkkee mu wàcce ko. Ah, xam nga loolu eh, new na. liggéey bu njëkk moo sama yaay sama boppam. wallaahi waa tey bi ñu ngi may dégg daf ma ni man aale daf ma dama laa ñee man ko ah sama yaay lu tax nga ñee ma man dama wóorul ni ngërëm li ma la gërëm moom yaa aada. sa papa gërëm la ko mu wóor ma dama wóorul ni moom am na ngërëm lu toll noonu ci way jur te wóor na ma ni moom ay gë sama papa gërëm na ko bi ma ko yóbboo sama ay mag ah. sama papa gërëm na ko ba ngooñam génn ci kanam waa tey ba yëpp te du benn yoon du ñaar yoon dëgg la kon nag moo tax ma gëm ni gërëmu ñaanu way jur yooyu hmm. gërëmu way yooyu yàlla xam na ni moo tax du ñu tiit dara du jàq dara. Hmm. te loolu yàlla ngi ci sutura. man ba ma dalee jàng ba fi ma toll musuma soobee. musuma def examen échec. Hmm. ah loolu nag yu mag ñi sant yàlla baaxu mag ñi ah dañ ci dellusiwaat ci mission yi nga xam ni eh, waataay ba ñu moom ko chargé bi ma ñëwee 90 ñu jël communauté rurale bi hmm. ñoom ñëpp d'accord ñu jox ma ko te booba communauté rurale yombul yor ndax état bi li mu doon joxee du bari te li mu doon joxee maire yu mag yi la ko daan jox commune daw daawul am dara. dëgg la mais foofu tamit euh, Ali xam nga lu mel ni communauté rurale ñu yëkkati ko teg ko ci say loxo. ak ak ni mu diisee yan stratégie nga def ba tey ba tey euh, euh, loola soqali ko tey ba am valeur ba nga xam ne tey bari na ñoo xam ne ñi ñu nga ca seeni gox. ñu ngi góorgóorlu pour mën pour ñu mën leen fal commune ba ba ñu mën a yor xam nga bu njëkkoon euh, président communauté rurale yi ñooy ñooy gox goxaat yi dëkki kaw yi. Hmm. Euh, li ñu daan jot ci état bi dawul bari ndax maire yi ñoo organisé woon. Hmm. am association des maires. su otee état bi joxee téeméer quatre cinq pour cent yi mbaa quatre pour cent yëpp ci maire yi la ko daan def. Hmm. ndax communauté rurale yi organisé wuñu woon. daawuñu fekkee fu ñu daan séddale. kon noonu bi ñu ñëwee 90 li ñu jëkk xalaat mooy naka la ñuy def ba booloo créer association ñu tuddee ko association des présidents de conseil rural ñaari at ñu di ko dox maire yi d'accord ñu ci woon booba Mamadou Diop a ngi fi macha allah. Hmm. Euh, di ko ñaanal yàlla yàlla na ko xale. Euh, feu Dabi Diagne Mamba Girassi hmm. euh, Mbaye Jacques Diop. sax hmm. ñooy léegi mag maire mag nga xam ne ñoo ŋànkoon maire yi. ba ñu ko wañ a feeñal waaye xam nañ ni bu ñu créé suñu association lii nu yor dañ dañ ci dañ koy séddalewaat euh, am ci ñaari kilifa yu ñu ci jàppale nag di Madien Feu Madien Khadijien boo nekk ministre de l'intérieur mm-hmm. ak faamara Sagna mm-hmm. bi ma demee seeti leen nun leen dañoo bëgg créer association te maire yi nee na da ngeen di ñëw bootu suñu ginnaaw te ñun bokkunu problème ndax ñun euh, euh, demuñu fen te Sénégal bu dee téeméer bu ne fa euh, juróom benn fukki ak juróom ci àll bi lañ dëkk ñoo gën a néew doole dañu war a xoolaat di état bi séddale ñu seet niñ koy séddalee. Hmm. bu njëkk boo nekkee président communauté rurale communauté rurale bi bala mu am fonds de concours day am 100 pour cent taxe rurale te 3 millions ngay am. nga dend ak commune bu ndaw boo xam ne yaa ko ëpp population moom mu am 20 millions 30 millions. yow nga am 3 millions. man bi may atu jëkk yi may yore communauté rurale bi pour ma amawaa 3 millions yooyu. damay làmb sama poos fayal ñëpp impôt. pour mën mu nekk 3 millions état bi joxaat ma trois millions muy 6 millions. xam nga six millions mënul liggéey dara. bi nu créé association bi nag en 92 Thiès lañ ko def def assemblée générale booba euh, euh, président communal ñoo fi nekkoon ak les président des conseils régionaux et départementaux. Mm. mën naa ni ak 90 pour cent ñu fal ma. ma ne nag jaadu na tey. ñu seet yan yoon la ñuy jaar. Mm. association bi am reconnaissance maanaam état bi xàmmee ko partenaire au développement yi aussi xàmmee ko loolu moo dëkk suñu premier jéego. Mm. vraiment euh, gouvernement yi fi teew yëpp jàpp ñu. Euh, commencé président Abdou Diouf 96 nu dem euh, acte 2 de la décentralisation ndax 72 mooy acte 1 mm. bi Senghor créé communauté rurale yi dénk ko suuf si ainsi de suite 96 ñu am neuf domaines de compétence compétence générale de développement bi nga xam ne nag maire yu bëri dañ koy fàtte boo leen waxee ñun leen ndox courant du suñu compétence non lépp luy développement lépp luy développement muy nga xam ngay maire ngay conseil départemental compétence boobu di compétence général mën na la permettre nga liggéey ci. Hmm. kon vraiment euh, occasion la ñu remercier kilifa yooyu donc président Abdou fu ñu def acte acte deux en 96. Euh, euh, euh, acte trois mën nañ ni président Ablaye Wade bi mu ñëwee acte trois président Macky Sall lañ ko lañ ko jagleel mais Ablaye Wade jàppale na bu baax a baax a baax a baax bi nga xamee ni dem na ni ñëw na en deux mille deux mille deux la ànd ak moom deux mille la ma commencé woo ñaari at. topp na ma ko. booba maa ngi parti socialiste. boo fàttalikoo deux mille deux sama demu PDS ga Sénégal yëpp. mais foofu tamit xam naa ne Sénégal yi bëgg nañu dégg parce que xam nga socialiste boo ko xasee nekk. socialiste presque euh, ci sa sang lay nekk. dëgg la loolu euh, ni ni Ablaye Wade defee stratégie ba mën a ba nga mën a ñëw fekk si ko loolu tamit Sénégal yi bëgg nañu xam. waaw am en 2000 bi Ablaye président Ablaye Wade defee mu gagné. la ma commencé yónnee ci man. Mm. ma ni ko président man baaxoowuma euh, euh, liggéey opposition waaye daal. Mm. wax dëgg bëgguma bàyyi parti socialiste. bàyyi ma toog parti socialiste rek waaye association bi ma yor. dinaa la ci jàppale luñ man en tant que état. ba mu xawoon euh, d' accord mais bu ñëwee PDS Idrissa Seck moo dem seet Abdoulaye Wade ni ko booba président cinquante communes rurales la am. Mm. sur trois cent et quelques communautés rurales. cinquante la ci i di def enquête am ci autorité administrative ni ko boo jëlee aale loolu yi li nga bëgg di nga ko am euh, jaar ci Baye Ngal Ngal gu Ndiaye xam nga Ngal gu Ndiaye tam macha allah moom it doon sama wóolare papa mooy papa Ablaye Ndiaye. Ablaye Ndiaye Ngal euh, président Ablaye Wade recevoir nu. Mm. en ma dëgër dëgër dëgër mu yónni Idrissa Seck Serigne Abdou. ñu ko daal aale laa soxla te dama bëgg maa ngi defar liste député yi dama ko ci bëgg te wax naa ko mu ni ma daal mu gàntal ma sëriñ sëriñ bi woo ma ma dem mu ni ma daal comme ah Ablaye Wade moom moom la fi yàlla teg te kër gi nag baaxawul contre état bëgg naa ànd ak yow demal ànd ak moom liggéey ma ni ko ah man déposé naa sama list euh, parti socialiste de booba ñu ngi jublu législative te vendredi boobu mooy dernier jour mun ma demal nga wax ko ma dem ci ngoon si ànd ak Baye Ngal euh, mu président recevoir Idrissa Seck toog mu ne ma ni ko ah dem naa parti socialiste pour récupérer sama dossier mooy casier judiciaire bi ak sama engagement mu ni ma mu ni ma tey la dernier délai du maay président de la république dinaa ko yokk ba lënd yow suba suba daañu la indil sa casier judiciaire si te te te ci président bu la bu la bu la parti socialiste sonalee doon sa avocat hmm. te da yooyu gagné effectivement noonu samedi matin ñu indil ma sama dossier mu yóbbu ma neuvième xuma septième sur la liste nationale. ma nekk député. Hmm. ci ma nekkee député wax dëgg yàlla mu jox ma cër jox ma commission des lois jox ma euh, ensuite commission des finances euh, ensuite président vice président de l' assemblée nationale. Hmm. caisse de dépôt et de consignation nga xëy boo nekkee président commission finance yoway nekk président conseil bi moom it ma yor pendant huit ans. Hmm. bi nga xamee jóge naa vice président euh, commission des finances nekk vice président assemblée. dafa changé texte kees gi ni den ale loolu na continuer nekk président conseil de surveillance cumulé ko ak euh, post bi mu yore en tant que vice président assemblée nationale mm. ndax liggéey bi may defal ci collectivité locale ñaari yoon woo dama ko benn bi bëgguma def ministre des collectivités mm. bi ci des ministre de l'agriculture mais bu demee ba yàgg mënu may aale ministre du dara mercredi bu ne mu man a changé <laughs> te lii ngay liggéey ci développement seen euh, local mm. di ma ko liggéeyal di ma ko liggéeyal Sénégal mu ëpp importance. toogal rek nu waxtaan koo xalaat maa ngi fàttaliku benn ci bis bi fekk fa notre ami feu Amath Sall. booba laa ko mais président amaat mi nekkoon na fi jógee na fi. lu tax kon doo ko woowaat mu naan pourtant wax nga dëgg de il est très intelligent. bon poste boobu moom la woo la ko joxaat collectif local mu boole ma aussi jàmbaar di cëw si si di ko woo ko mu toog ma toog. ñu ko mm. aale mi lépp looy defati. gi décentralisation na nga ko woo. même fonds de concours yi fonds de dotation yi bu koy séddale daf ma naan defal ma proposition programme yi nga xam ni ñoo nekkoon ci wàllu ASER électricité wàllu AGETIP ci mm. wàllu yoon yeeg courant Sénélec kenn ku ci nekk mu ni la lépp loo xaali ali soxla na ko dimbali ko collectivité rurale yi parce que retard bi foofu la nekk mm. na ngeen ko ci jàppale mm. donc vraiment moom it mu jox nu nekk daan di meilleures conditions occasion la ñu sant ko dama ko daan gis sans audience parce que fu ma ko soxlaa wa du ma jaar ci kenn loolu sax suñu mbokk PDS dañ ko daan mer su amee réunion day xool ba xam ñëw na am déet <laughs> moom vraiment dafa am fu mu ñu tegoon fa tabarakallah doon man mu baax mag mu am yéene 2007 hmm. bi muy dem bi ñuy préparé 2007 mun daan ni àll bi ñoo ko fal hmm. ma woo ma ni ko président ndakaaru gi soo ci defoon budget Sénégal yëpp du tax nga gañ par contre àll bi nag li ci war ñu ko fa defee ci wàllu yoon wàllu ndox wàllu courant. Mm. yaakaar yaragandaay li nga bëgg di ko am. dëgg la 2007 àll bi ñoo fal Ablaye Wade. dem na ba am 250 communautés mm. rurales. 257. Mm. te 50 la départ te 50 rek kon mission boobu ma chargé woon. wax dëgg yàlla euh, réussir na ko. xam na bu baax. Euh, décentralisation te nun nag vraiment ñaari ñaari ñaari euh, tànk la ñuy dox benn bi mooy développement local. mbéy mi càmm gi bi ci des décentralisation. jërëjëf El Hadj Alé président xam naa tamit foofu sam ci la ñuy jaar ndokkeel Abdoulaye Wade. souhaité ko nag joyeux anniversaire. ku ne xam na ne anniversaire am la génn rek bu yàggul. mu nekk mag mu yiw nekk mag mu baax. nekk mag moo xam ne tamit lu ko waroon ci réew mi yépp def ko. Alé moo ko wax président. ndax moom ku fonkoon communauté rurale la mm-hmm. ak décentralisation mm-hmm. mais Ali bi ñu la dénkee poste boobu li yéen jëf-jëf nga jëf ba tax ba tax daal dëgg-dëgg développement bi am ci Taïba Ndiaye am ci waaw donc euh, Taïba Ndiaye li ñu jëkk xalaat mooy naka la ñuy def mm. ba yokk koom-koomam mm. naka lañ koy jaayee ba mu jar mm. euh, te buñ ko tàmbalee Taïba Ndiaye nan fexe ba lu Taïba Ndiaye am yeneen dëkk yi am ko Euh, nu tàmbali fexe ba attirer ay investisseurs euh, parc éolien bi nga xam ne mooy jox courant bi euh, ci ci ngelaw li. Hmm. juróom-ñaari at projet boobu tapp nañ ko ko. bailleur bi bu muy ñëw idée de projet la am amul woon dara. Hmm. bu ñëwee otoom sax mënul dem ci àll bi ndax dañuy nat pendant ñaari at dañuy natt vent yi dem ci àll bi su ñëwee sama oto laa ko jox. mu ngi invité ma France wan mooy dëkk yoo xam ni. ci courant euh, ngelaw li lañ leen alimenté ma xam ni lii du dëgg la euh, amul wan ñaari dërëm yu mu fayee borom tool yi man maa porté woon garant woo borom tool yëpp ndax 42 kilomètres la soxla ma woo leen ni leen man maay porté garant ñii nag damay signé ñoom convention boo xam ni benn kuñ ci jël sa tool daañ la fay le double li nga doon li nga doon li nga doon euh, li barème bi état bi am daañ la fay le double mm. bu dee 3 millions ñu fay la 6 millions bi ci des en terme d' emploi lu ñu soxla ci gox bi ci ay eh, nit ci yéen dañ ko jël mm. bi ci des nag dañuy signe contrat boo xam ni at mu nekk amul état du la exonéré bi ñuy négocier ak état dañuy teew mm. du am benn baal exonération impôt pendant vingt cinq ans projet bi dañuy fay trois cent million chaque année au niveau de la commune loolu nag mooy première force am beneen projet bu tudd Tobène Po moom itam bi mu ñëwee Tobène da war a nekk ca Mewane ñëw jaar ci man comme maa jiite woon ma yebal ko Ousmane Diop ni ko demal Ousmane moom 5 hectare rek la soxla. Hmm. bi mu demee sax euh, euh, Ousmane laaj ko ni ko waaw ku la yebal mun ko président Aliou mu ni waaw lu tax mu nekk PCR comme man joxu leen 5 hectares ca Taïba di leen yebal ba fii <laughs> lu di indi ñu ni ko ah, ñun daal mënuñu kaa joxe dara xanaa bu ñu commencé mun naa waa dellu leen ci àll ni ko na leen wutal cinq hectare ñu ñëw ma ma boole leen ak euh, Senelec daara yi booba directeur ndaw moo fa nekk. Hmm. Euh, ndaw it ma waxtaan ak moom mu digal ma ni ma gis nga boo fexewoon ba Sénélec implanté wu fii. Hmm. donte sax Sénélec du ñu fay tax mais dinañu xëccali yeneen investisseur ma jox leen d' abord cinq hectares yokkat ko ba cinquante hectares waxal ñoom tooben po ñu dugg leen ci biir jaay leen. mais Sénélec nekk googu ñu fa nekk. tax na ba yombal nañu suñu dëkk yëpp am courant. waaye tax na ba euh, société yi nga xam ni dañoo soxla Senelec euh, euh, implanté wu suñ biir tey ñaari société yow moo la wax plus de cinq cent millions lañuy ñuy dugal ci keesu commune bi sans compter nag li ñuy tuddee RSE investissement yoo xam ni def nañ fa quarante kilomètres de piste parc éolien bi di dimbali xale yi di dimbali école bi di dimbali jigéen ñi di def ay forage ñu ngi di béy di béy noor ak nawet hectare bu njëkkoon tay cinq cent mille la daan jar. dem na ba cinq millions. ndax àll bi yëpp am na yoon. donc loolu lan gëm ni euh, commune pour mu mu développer dafay am ses moyen propres tey état Sénégal fonds de dotation fonds d'équipement li mu jox euh, Taïba Ndiaye matul 10 pour cent de son budget. ay vingt millions matul 10 pour cent de son budget loolu nag lañu bëgg commune yëpp góorgóorlu fexe itam ba jaay seen commune. kenn ku nekk am na loo mën a mën a indi attirer des investiseurs pour am mën a am ay tax a ah, loolu def Taïba Ndiaye nag defuñu ko gaa fépp mais tey ba Sénégal daj amul benn département benn arrondissement boo xam ni tey bu ñu fa deman duma ma leen lii maa ko fa def mbaa ki ko fa def maa jàpp ci loxoom jaf ko fi te loolu président communauté yaa ak may déglu. Mm. ah di leen di leen jàppale wàllu formation ndax loolu itam dafa manqué woon lool. Mm. ñu dem Canada négocier ak ñoom financement de quatre milliards boo xam ne élus locaux lañ ko doon lañ ko doon def élus ko ci boppam moo doon association maire yi. Mm. ma dem coopération francaise jox nu cinquante million booba mission française de tudd ma ñëw waxtaan ak maire yi ni leen léegi yéen comme bâtiment baa ngi daanu. te nun am nañu xaalis au lieu ñu dem wuti local nañ ko di euh, maison des élus waaye nag dañuy signer convention. Mm. booba Soti Touré moo nekk euh, ministre euh, collectivité décentralisation. ñu signer convention ni kër gi léegi këru élus locaux yi la. association des maires association des communautés rurales ak sax ëllëg booba région yi ñëwaguñu bu région yi ñëwee mbaa département yi ñu bokk ko loolu moo tax ba léegi maison des élus donte AMS titre bi ñoo ko moomoon. tey ñetti association yëpp UAL bi nga xam ne moom la ñu mujj créé bi ñu jiitee APCR jiite ANCR dañu waxtaan ak euh, président Dabi Diagne à l'époque Mamadou Diop ji Dabi moo jiite woon région euh, Louga mm. jiite également l'association des régions man leen nañ créer UAL mooy benn kuréel boo xam mooy lëkkalee nag ñetti association yi pour que vraiment euh, ëllëg ñu am cadre boo xam ne dañuy mën a waxtaan ak état loolu moo doon suñu force boo xam ni eh, dem nañu dem a dem ba complexe bi nga xam ni cadre yi dañ ko doon am ëllëg pour nekk euh, PCR mbaa maire euh, tey daanaka booy te quatre-vingt-dix cent des communes ay ingénieurs ay docteurs ay ay maîtrisants nga fay fekk ndax développement ne su koo def donte nag am na sax quelque ñoo xam ni seen jàng soriwul waaye ci wàllu développement. Mm. mais li ci ëpp tey xam nañu ni euh, booba itam fonctionnaire mënul nekk maire. loolu tam ñu dem ministre de l'intérieur ni leen nag euh, enseignants yi euh, professeurs yi nga xëy dañoo liggéey ba war a dem retraite ba ñu nekk en fonction bu ñu bëggee euh, développer seen dëkk war nañ leen a permettre. Mm. ñu modifier le code bi pour que fonctionnaires yi mën a nekk beer loolu tam liggéey boo xam ni association yi ñoo ko def. Mm. te vraiment bi ci dee si tam mooy coopération internationale. maire yi amuñu woon occasion PCR yi amuñu seen budget mënu mm. leen permettre ñuy voyager. Mm-hmm. donc ñu négocier ak les partenaires coopération française coopération belge coopération allemande am ay financement yoo xam ni dañuy yóbbu par groupe di yóbbu France di yóbbu Allemagne di leen yóbbu États-Unis dans le monde entier. Mm-hmm. boo gisee succès bi association yi amoon mën naa yi doon la bokkoon. wax naa la léegi ni la euh, jéego bi nga xam ni euh, décentralisation def na ko ci temps président ay Wade bi nga xamee ni euh, maire yi. maire yi maximum defe naa ni ay cent mille lañ daan am salaire. président comité yi moom vingt mille vingt cinq mille maximum. bi nu ñëwee wax ak moom wax ko maire yi li ñu daj ak responsabilité bi ñuy teg ci moom daf ma ni bi ci gën a néew mooy président comité jox ko deux cent cinquante mille par mois jox ko oto jox ko chauffeur. Hmm. entretien auto bi ak assurance bi. tout les 317 la ñu wan ñëpp boobu amul far kii far naag moom ñëpp lañ ko defaloon. association APCR ANCR ak suma rak Abim Niass di eh, président di maire wu Taïba Niassène eh, moo doon kon secrétaire daal moo ko daan gérer. ak it sunu secrétaire eh, Aïcha Lo macha allah ñu nekkoon vraiment une équipe dynamique. Mm. boo xam ne nii vraiment ba léegi président comité yooyu koo ci dajal mi ngi lay fàttali. at mu nekk it dañ daan def benn assemblée générale maanaam. dajale tous les PCR. tous les maires. Ngor Jaaraama lañ daan daje ñaari fon léeg-léeg ñetti fon am na at ñaari at yoo xam ne sax dañ du cee boole vice président yi mu nag daanaka mille personnes. te booba wax dëgg yàlla partenaires yi doon jàppale. Eh, amuñu woon benn problème bu ñu ñëw eh, eh, suñu mbokki éleveurs yi dañu may ay nag. Euh, suñu mbokki lébu yi may nu ay jën ñële may nu ceeb bu ko defee soxna maam faama jël équipe bu Tivaouane yóbbu leen foofu pendant ñaari fan ñetti fon mm. fête la daan doon dëgg la euh, hôtel bi daan na fees euh, bu jëkkoon foire ba lañ ko daan defee mm. booba amaguñu mooy mais bi ñu amee ñu ñëw hôtel bi dëgg la pendant au moins dix ans quinze ans mm. ngor jaamara la ñu ko defee président Ale xam naa daal looyeen bi moom xam naa ne fonk na xar yi ak <laughs> ak jën yeeg yooyu. la waaye aliloo ak politique. xam naa daal dugg nga léegi nag ci cadre politique boole ko ak li nga xam ne nii mooy sa métier yi nga xam ne moom nga jàng. lan moo waral loolu. waaw xam nga comme ni ma la wax euh, sànq comme man ba ma ci dugg daanaka damaa dama waatoon dugguma ci woon pour sama intérêt bopp. Hmm. mun naa ni fanweeri yat yi ma nekk maire ak responsabilité yi nga xamee ni yore naa ko. tey boo demoon tay ba duñ la woon benn tool naa la lii aliloo ko moom. coow lu bari yi yëpp yàlla xam na ni amul fa lenn loo xam ni jël naa ko pour sama meelu bopp ba déet moo fa doon am ñaari mbaa parcelle ci fanweeri at ak ñaar yi ma jiite yi ma jiite commune bi kon lépp loo xam ni mën am naa ko. bokk naa ko ak ñoom. te la ñu moom nag seen bopp mu bàyyi ko ak ñoom. te loolu moo tax sama mandat yàgg bi am fa. 2022 hmm? bii passé. ah li xew mooy mu xew fépp itam nag mooy liste yu bari hmm. Taïba Ndiaye rek amoon na juróom xaw ma juróom benni candidat yu dëkk biir Taïba Ndiaye électorat bi éclaté wu loolu moo indi ah te waaye nag rëccu wu ndax bu amul woon bu changement bi amul woon hmm. lu bari bari duñ ko xam hmm. fi mu nekk euh, li ma wóor mooy su ma leen neen tey damay bàyyi politique xam naa ci laa jëm nag ndax it maa ngi jëm mag xam naa daañ ci ca fin luy ñoon sew ma del siwat waaye nag itam luy war a doy dafa war a doy fanweer yeet njaar wax dëgg yàlla ñoom it wàccoon nañu man li ñu mën yëpp def nañ ko may li ma man yëpp nag defal naa leen ko donc vraiment occasion la ñu sant bokki tay ba yëpp mm. ci seen taxawaay góor jigéen ak mag mais rupture boobu tam lan moo ko waral rupture boo xam ne bii benn gox rek lu mat juróom benn candidat ñëw fa ba tax sax mairie ba rëcc. non moo xew moo xew fu bëree bëri. xam nga hmm. loolu mooy candidature multiple am na ci ñoo xam ne sax euh, président Macky Sall nee na moo leen gémboon ndax moom it euh, xam nga politicien moom dugum yàlla. <laughs> day bëgg a joué ci carte yu bëree bëree bëri. division boobu am Taïba Ndiaye moo am fu bëree bëree bëri. mais dañ koy sant yàlla. Hmm. sunu daje bu mujj bii le maire actuel nga xam ni moo nekkoon suma adjoint. ah wax dëgg yàlla seede ba mu fa def. ci kanamu ñëpp. Mm. Ah, wax dëgg yàlla euh, dal na xel. Mm. parce que nee na kii mooy sama maître mooy sama kilifa. Mm. te itam bu nu dajee réunion sax su ma waxee du wax kon nag ci wàllu politique juyoo amoon na waaye xam na ni xorom dis na. wóor na ko ni eh, tey euh, chance bi ko yàlla defal mu mën a dérouler commune am sans am benn jafe-jafe. am lu kenn amul ci wàllu moyen ci wàllu ressource. Mm. ah loolu moom itam reconnaître na ko nee na léegi maa war a nekk son maire honoraire infrastructure yi nga xam ni def nañ nekk na ci commune bi à commencer Taïba Ndiaye nee na dina ci waxtaan ak conseil municipal am pour que mu tuddee ba ko pour ràññee liggéey ba xam ni def nañ ko. ah loolu itam vraiment saj la ah mënoon na ko bañ a def. Mm. kon nag moom it ñu sant ko ci gërëm ko ci fi nu toll daal fi nu jëm. mooy ñoom ñëpp buñ càggee ñu toog waxtaan dëkk ba ñoo ko bokk tay ba ñoo ko bokk tey it mu musa ay tay ba ci wàllu jàppale leen waaye nag tey dañ leen war a gunge seet na mu gën a rafet suñ biir pour que tay ba ba fii mu yëg si mu bañ a dellu gannaaw li passé passé na nan xool suñu karam naka la ñuy mën a def ba tay ba gën a nekk ci kanam ah, mbokk téléspectateurs yi nag tey tànneef tey ale loolu indi doomu ba njaay bu mag bi dégg ngeen li nga xam ne nii moom la faram fàcce wane na daal dëkk boo ko bëggee développé ah da koy da koy booleeg nag liggéey bu rëy boo xam ne doo jël lépp nga sëf ko nag la nga xam ne mooy gouvernement ba foog nga am sa xalaatu bopp di wuti ailleurs pour nga daal di ko dellu si nag ci biir dëkk moom nag def na ko ba dëkkam macha allah ñu ko ca wutu ah bi nu accès ah dañu dolli rek ñoom tam ñu ñaanal leen yàlla sàmm leen bu baax a baax. mais allez defe naa ni président Macky Sall liggéey ngeen liggéey bu yaatoo yaatu. waaw jërëjëf euh, ni ma wax ci jaar koog euh, président Abdoulaye Wade. Hmm. Macky Sall noo bokkoon d' abord parti démocratique sénégalais. Hmm. mu xam bu baax fi ab Abdoulaye Wade teg. bi mu ñëwee moom itam en 2012. Hmm. li mu jëkk xalaat mooy ale ñëwal a ma ni ko président yow gis nga fekkee nga coow la ma topp. ba ma demee PDS doo ma may rek ma ma ma ndax man du ma contre état may ma rek ma nekk ci sama aar Sénégal yi continuer nag di la jàppale mu ne waaw déedéet mais ba tey ndax comme jàppale woon nga Abdou Diouf ma gis la fa def jàppale nga président Abdoulaye Wade ma gis fi mu la tegan yow itam dama bëgg nga ñëw jàppale man ko daal li mu wóor mooy jàppale gi moom man wax laa na ni d'abord euh, euh, gis nga photo bi ñu ànd Serigne Abdou jël na loxoom teg ko sama loxo boole ak moom. ndeysaan te Serigne Abdou sama lépp. su ma ko narul woon sax bu ma ko santee dinaa ko def kon dinaa la jàppale ah moom it wax dëgg yàlla euh, donte loolu mu waxoon jëluma carte APR xam na ni jàppale naa ko lu mu mën. élection yii passé mën maa nekkoon coordonnateur Benno Bokk Yaakaar département de Tivaouane. te loolu bu neexul woon Macky Sall du ko def. xam naa nag dëgg la xëy na seetaan na ndax it 2022. bi ñuy def renouvellement association yi yow xam nga la ci xew. Hmm. Sénégal yëg yëg na xam naa ni mbooma moom it peut-être euh, yéenewul woon li am wante euh, nam war nañu taxaw bu ko taxawoon euh, xëy na loolu daam waaye ba tey baax na ndax booba ñëpp yaakaar la ñu am. Hmm. ah loolu nag ñun rëccuwuñ ci dara ndax ba tey mën na ni ña fa nekk tey Uri jàlloo mooy président UAL. UAL hmm. maa ko yoroon. Eh, Omar Ba moo jiite AMS. Eh, def nañ nañu président d'honneur de l'UAL eh, maire honoraire à ba Ndiaye donc loolu tam honneur la boo xam ne semaine bii ñëw ñu ngi ma invité Thiès pour que ñu woo tous les maires di waxtaan ci wàllu santé wérgu yaram ak ONG 3D ou 3A ma Ndiaye Cissé naa ngi ñaan tous les maires du département le le le 6 le 6 le 5 et le 6 ñaari fan ñu daje Thiès euh, tous les élus de la région de Thiès soo liggéey ñu dem ci yeneen région yi pour xool maire yi nañu gën a mën a jàppale santé mm. état bi ak bailleur de fonds yi ku mel ni USAID occasion la vraiment ñu gën leen ñaax ndax état mënul lépp il faut que ñu seet niveau local mm. euh, euh, émergence bi ñuy xaar ci Sénégal ñun dañu jàpp ni bu dëkk yëpp jëmee ci kaw mm. Sénégal jëm ci kanam loolu nag wax naa la sàng ne la. Mm. président Diomaye no ngi koy ñaanal moom le ministre premier ministre Ousmane Sonko. Mm. Euh, li ñu wax ci développement local ci wàllu agriculture élevage ak peche mm. fexe ba li ñuy dundal Sénégal muy jóge ci Sénégal ñun lu ñu yàgg d'accord la li nu xamagul nag mooy deuxième pan bi mooy décentralisation ndax li ñu gëm mooy. tant que gox-goxaat yi développé wuñu tant que niveau national bi nanguwul a wàccee responsabilité yi laaj nga ma léegi président Macky Sall. acte trois de centralisation moo ko def. fexe ba dem communalisation intégrale ñëpp nekk commune yokk aussi les moyens. wante des na ndax partie finance bi maanaam koppar bi ñu gën ko wàccee loolu la président Macky àggalewul te loolu la ñuy sénti nag. ci kii gouverne ci Diomaye fexe ba vraiment li ñuy jot. ñu multiplier ko par ñaar par ñett def ko ci monde rural bi waaye def ko ci collectivité locale yi. Mm. maire yi am moyens yu ñu mën a liggéey. tey ay case de santé ay post de santé. Mm. ministère yi di ko doxal te compétence yi nekk ci suuf. Mm. ministère bi day lancer appel d'offre au niveau national. entreprise yu mag yi gagné ko dem ci suuf su traité ko ak entrepreneur boo nekk mi ci dëkk bi. ndax conditions yi ñuy laaj ca kaw du ko am. loolu moyens yooyu nag suñ ko wàcc woon lu mel ni BCI budget consolidé d' investissement jaadoodul tey en 2024 euh, fonds boobu ñu koy bàyyi ci kaw au niveau des des ministères bañ ko jox au niveau des élus ñu koy exécuté te li ci ëpp léeg-léeg sax ministère bi procédure bi day dem ba dem ba BCI bi pour cent 50 pour cent te damaa defe ni amul benn maire boo xam ne daañu la jox xaalis ni nga liggéey ci ngay toog ba fin d'année doo ko exécuté donc loolu vraiment ñun foofu la ñuy séntu ñoom ñu wax ñu ci décentralisation lan la ñu xalaat fañ lañ fañ la ñuy yóbbu gox goxaan yi wax naa la ni euh, Abdou Diouf am na acte ab euh, euh, Abdoulaye Wade li mu def ci décentralisation Macky Sall acte trois bi moo ko def mu des nag financement du développement local boobu la àggalewul te loolu nag la ñuy séntu le statut de l'élu muy tam ay pas yu am solo réforme foncière maanaam suuf si. Mm. gis nga xeex yi ñu dégg. Macky Sall président ne woon na téeméeri dossier contentieux yu mu am juróom-ñett fukk yi. juróom-ñeent fukk yëpp ci suuf la. <laughs> ah loolu nag dafa laaj waxtaan. Mm. te jàgg nañ cee waxtaan nag ba am proposition waaye euh, bu ñu demee war a jëfee rek élection ñëw ñu tegaat ko ci suuf. kon nag léegi jot na tey ndax loi sur le domaine national man dama gëm ni loi bu baax la. Mm. waaye loi lu mu baax baax. su amee ñeent fukki at juróom fukki at dafa laaj ñu soppat ñu beesal ko. loi boobu am na njëriñ Senghor moo ko moo ko 1964 fexe ba suuf si li ci ëpp di domaine national. kenn bañ ko bañ a jaay euh, euh, euh, kenn bañ ko akimoo ñu ni kenn ku ne la ngay bay moomale nañ la ko. donte doo ko mën a moom du koy donante waaye tànk nga koy bay kenn du ko mën a jël ci sa mm. mais tey dañu àgg foo xam ni nag. béykat bi dafa war a soxla suuf si nga xam ne nii moom lay béy mu am ca garantie boo xam ni bu demee ca banque ba dina ko mën a yóbbu ca banque ba. bañ koo libéraliser ba ñi sant Cissé gi sant Jaxate def ko marché di jaay waaye war nañu mën a gën a encadrer paysans yi pour que loolu ñu yor ñu gën ko valoriser. ba ku dem ca banque ba. mbaa partenaire bi ñëw nga am titre boo xam ne nii euh, dina ko mën a nekk garantie. pour que nga mën a am matériel mën a am intrant yoo xam ne nii li la état bi jox du doy mais suuf si nekk sa capital. maa ngi fàttaliku le le premier ministre euh, Amadou Lamine Loum maa ngi koy nuyu. Hmm. bi mu nekkee premier ministre noom intelligent mu ne ma gis nga euh, président Allé réforme foncière yi. Hmm. suñ ko xoolan ba fexe ba nit ñi ni ñu téye suuf si béyu ñu ko. liggéeyuñ ko ñu teg ci benn taxe bu woyof waaye képp koo xam ni am nga hectare te mettre ko en valeur da nga cay fay impôt mbaa collectivité bi jël ko bi mu ko calculer mat matoon na ñetti yoon li état bi jox te wax na dëgg danga gis koo xam ni ba doon dem fii ba ndar hmm. àll bi yëpp kenn béy ko te foo ci laal ñu ni maa ko moom parce duñ ci fay dara hmm. donc jaadu nañu seet réforme yoo xam ne ni dañu gën a valoriser suuf si surtout nag lii euh, euh, euh, régime bi wax ni dañoo bëgg bay dunde hmm. bay dunde dafa am lu mu laaj benn problème suuf si ñu réglé ko ñaareel bi itam ñu fexe ba am ndox mu doy jëli ndox ci suuf forage yi hmm. tey foo gas forage yi am ndox di bay noor di bay nawet hmm. lac de bi ñu fexe ba tasaare ko mu dugg ci Sénégal donc grand travaux yi am na solo mais tey loolu bu ñu ko defan fii benn at ñaari at ñetti at dañuy am autosuffisance di exporter suñu produit yi yàqu noo ngi félicité le ministre de l'industrie Serigne Gueye Diop liñ ko dénk xam na ko pratique na ko ku dem ku dem Sandiara gis lam fa def ni loolu la bëgg a def ci Sénégal mais loolu noonu gëm nañu ni loolu mooy développement fexe ba nit ñi ulbat ñaari junni ñetti junni xale di fa liggéey benn xale du jógee Sandiara ñëw di waxuma Ndakaaru waaye di dem ci géej gi loolu nag mooy vision boo xam ni il faut que ñu ñu seet potentiel bi Sénégal am li nu am ci mine am ko ci ressource minière mm. te pétrole bi ñëwagul dañoo wax a war a seet naka lañ ko mën a jëriñoo mu nekk njëriñu Sénégal yàlla baaxee nañu mm. ressource yoo xëy buñ ko xalaatee gere ko bu baax Sénégal day développé ak croissance durable ndax dañuy wax toujours ne oui croissance dëgg la mais euh, secteur bi ko tiire euh, c'est mal réparti. Mm. àll bi bokkuñu ci li tax àll bi bokku ci nag mooy 65 pour cent yi dëkk ci àll bi nañu fexe ba ñuy liggéey noor ak nawet. nawet waaw. dëgg dem ñooñu ñëpp ñoo bokk déglu président alilo waaye président Alilou xam naa ci bay dunde boobu nag Diomaye tënku na ci lu bëree bari mm-hmm. réew mi soxla ko. tey boo demee tey ci sous région bi wala réew yi ñu wër ku mel ni Maroc dangay gis ne lépp. ñoom dañuy bay di dañuy bay di dundee. dëgg la mais léegi vision boobu nan nga ko en tant que en tant que doomu baykat en tant que président communauté rurale. xam nga euh, euh, li ñuy tuddee volonté politique rek. Hmm. am gis-gis bu leer def ci itam la mu war ah, ci accompagnement. dëgg la ren ji yokk nañu euh, daaw cent milliards la ñu joxe woon te ñu teg ci vingt milliards mais dafa néew par rapport ak li ñu war a def euh, bi ñuy campagne di gën naa candidat defe naa Idrissa Seck waxoon ni bu gañe woon mille milliards lay def euh, ci ci mbéy mi mais wax na dëgg bu ñu tegale woon mille milliards mill milliards mille milliards ñaari at ñetti at mais dañuy régler suñu autosuffisance dootuñu jëggaani fenn gis nga wàññi prix yi ñuy wax mm. tant que maîtriser wuñu prix yi ndax lañuy ñuy jëggaani ci àll ba di ko jënd ci àll ba mm. état bi amul moyen di ko support di ko wàññi bu ko wàññee itam euh, euh, da ngay gas mm, euh, pax waaye gas beneen bu gën a xot donc je pense que ni li tax ñu mën a am autosuffisance mooy nu fexe ba di béy noor ak nawet yàlla baaxe na nu jant bi ak ak ak ngelaw li nu mën ci am énergie bu doy ressources yi ñu jëlee ëllëg ci pétrole bi nañ ko delloowaat ci àll bi xale yi dootuñu jóge àll bi ndax Ndakaaru li fi xew insécurité bi somage bi yëpp. Mm. sunu doom yi jóge ci àll bi la rek. bu ñu fexe woon ba kenn ku nekk dellu sa dëkk. la ngay wut si Ndakaaru nga am ko ci sa dëkk. Mm. ci wàllu koom-koom ci wàllu dëkk ci wàllu environnement. Mm. kenn du kenn fet Sénégal ñuy liggéey noor ak nawet. mais booy seet li ñuy liggéey ndax béykat bu dee ñetti weer day liggéey. toog juróom-ñeenti mais loolu ñetti weer du la dundal. Hmm. technologie yu bees yi nga xëy am na. rendement yu baax fexe ba am trente quarante tonnes à l'hectare te mu mën a nekk yaa ngi wax Maroc léegi. Hmm. mais Maroc booy dem doo gis benn àll bu ñu bay fii nag da nga jógee fii ba Ndar àll bi quatre vingt cent. di wéyëng di wéyëng kenn béyu ko. Hmm. kenn béyu ko te ko laal mu ni sama tool. sama tool ah loolu nag dafa jar a seetaat. <laughs> dëgg la dëgg la jërëjëf Aliou Lo macha allah président di wax ne tamit ñoo ngi ndokkeel bu baax. ki nga xam ne moo jiite 3D di mu Njaay Cissé. waaw nekk tamit nit ku yàlla baaxal. mais Allé defe naa ne mag ñi war nañ gunge xale yi war nañ leen leen jàppale waaye tamit yaatal bi ba xale yi mën a agsi tamit defe naa ne loolu tamit mag ñi war nañ ci bàyyi xel. waaw damaa defe ni euh, mm-hmm. effort bi ci ñaari côté yëpp la. Mm-hmm. mag ñi war nañoo ndax seen seen seen seen expérience seen xam-xam. Mm-hmm. Sénégal daf ko soxla. ndaw yi ñoomit seen seen compétence. seen doole ak seen doole. Euh, Sénégal def ko soxla dégg naa sëriñ Babacar daf daan wax ni. Euh, ànd bu mag yi kese mbaa ndaw yi kese. doyuma ñoom ñaar nag bu ñu àndee kenn ku ne la ngam nga indi. mais loolu mooy tax Sénégal jëm ci kanam ñun mag ñi nañu gën a yaatal gën a dawal compréhension waaye xale itam nañu delluwaat seen xel euh, xam ni expérience dafa baax ndax loo am am yéene. Hmm. am na loo xam ne nii. bu ñu xëy xëy teg ko doo dem ki antanul cent kilo hmm. cinquante kilos boo ko tegee cent kilos du dox kon nag loolu tam occasion la vraiment ñun ñëpp ñu bàyyi xel que ni Sénégal ñoo ko bokk te ñun li nu am dañ ko war a yéwénal euh, jàppale xale yi ba ëllëg lii nga xam ni mag ñi jaare nañ fa ndax kat nun dañuy wóor ni li nu am ak fi nu jaar ñaanu mag ñi la jàppale mag ñi hmm. te loolu nag dañ ko yéene xale yi ñoom it ñu war leen di jàppale ba Sénégal jëm ci kanam. dëgg waaye ale tamit euh, ñu jàpp ni sa diggante ak sangu bi nga xam ne ñoo nekk Tivaouane Al Amine moom daf la jege woon lool. Mhm. Euh, nan la diggante nag nan la euh, wax naa la man dama dañu juddu ci ci Serigne Babacar da daan wax ni. Mhm. Tivaouane mooy Taïba Ndiaye mooy waga na wanagu Tivaouane. at mu nekk mu daan fa ñëw Taïba Ndiaye yàlla daf ko baaxee. Serigne Babacar ñëw na fa fanaan fa euh, suñu euh, maam borom Touba ñëw na fa fanaan fa ñaari fan ba ñett hmm. ba tey at mu nekk mbokki mbokki murid yi am nañu kuréel goo xam ne nii dañ koy tuddee kuréelu ñetti fan yi dañ koy màggale euh, suñu maam suñ Touba hmm. waa Layeen suñu Abdoulaye am fa soxna am fa hmm. njaboot at mu nekk waa Layeen yi eh, gàmm donc tey bay dañ ko baaxee ci loolu mm. ah ñun nag judd ci environnement boobu mm. su noom Moussa di béyal suma sama papa su ba jotee mun ma demal tool sëriñ bi demal tool sëriñ Mansour sëriñ Mansour nekkan wóllëre bu baax a baax a baax suma rakk bi ñu wut bi ci man sëriñ Mañ Mansour man sëriñ Abdou féete woo def ma doom ba wax naa la sànq jël taaw dénk ma dajale njabootam yëpp nag ni leen aale mii mooy suma taaw. ndax mooy deñ suma taaw. gërëm ko nag itam nag ndax ku xam maam faama xam lim liggéey ci papam service papam yëpp moo ko yoroon. loolu mu yore woon Tiwaawan nag moom la yore fii jàppale nu ci biir jàppale ci sunu soxla dara du ko fekke ci moom. Hmm. kon dañoo juddu ci Tiwaawan te it moo nekkoon suñu suñu conseiller ku xam Serigne Abdou fu crise musa amee ci Sénégal. ba ci crise politique sax ñëpp seen xel dem ci moom. parce que amoon na xalaat bi amoon na xel expérience am depuis Serigne Babacar si dañ ko nàmpatalan ci ci loolu. Hmm. donc loolu vraiment yàlla baaxee nu ko ba euh, fépp fu mu sa jaaree it euh, ndam lañ ci jëlee. mosuñoo hmm. wax lenn loo xëy des na gannaaw relation yi nag moom la ñu seq njabootam. Hmm. Serigne Babacar bi nga xam ne mooy taaw Serigne sa la mu dénkool service su kër ñoom ñëpp lépp lu ñu xew xewle dañuy jaar fii ni leen kat li way jur waxoon duñ ko dindi loolu occasion la ñu sant leen li nu bëgg daal moo di euh, Sénégal gii dañu jàpp ni képp koo xam ne nii euh, bëgg nga koo yor euh, am na nu valeur yoo xam ni mag ñee ko liggéeyeen démb dañ ko war a gën a dëgëral hmm. dañ ko war a dëgg gën a dëgëral ndax it jig nanu nag ndax bu fekkente ni fu coow amee ñu ne nañ dem ci sëriñ bi ñoom la ñuy xalaat képp ku jaaxle. ñu ne mm. nañ dem ci sëriñ bi ah wax dëgg yàlla sëriñ bi ëpp na am teg ci gannaaw kon nag ñun loolu dañ cee màgg eh, ñu nàmpatal nu ci eh, ba tax na wax dëgg yàlla eh, pour ñun loolu moom dafa dafa sacré. ñun ñëpp nag ñoo dégg président Alilo mu tàbbi nag tey ci tànneef indi ci loo xam ne lii lu am solo la lii nag jëm ci réew mi tubaarkàlla nag tàbbi nag ci développement réew mi. indi tamit njariñal mbay ci réew lu ci nekk alalu jaar na ci léegi Ali xam naa dañu lay laaj rek euh, sa diggante nag ak association des anciens maires. waaw jërëjëf Mamadou xam loo tàbbi fexe nga nga doon ca jërëjëf loolu lan moo ko waral. waaw 2022 li ma la wax mu xew Taïba Ndiaye ci wàllu liste parallèle yi moo xew fu baree baree bëri. Hmm. Euh, maire yu baree baree bari euh, ñàkk nañu seen maire yi. wante eh, yaafus taxul am nañu bilan bu wóor boo tax ba léegi eh, nit ñi ngi di bàyyi xel ñoo ñu nekk dañu nekk téeméer ak juróom fukk ak ñaar ñu waxtaan seen biir eh, jël ma jiital ma ma nekk seen président muy élan élan des anciens maires nekkoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar ba tey yàlla dogal li mu dogal ah ñoo ngi toog nag di xaar di préparer suñu assemblée générale xool ëllëg naka la ñuy la ñuy jëmale président Macky moo nu boole woon nag Amadou Ba ba nu tàmbalee liggéey moom tey jii nag xamaguñu Amadou Ba fu mu jëm président Macky itam mi ngi wax ni ba fa bëggee dajale njabootam ñu itam noo ngi préparé suñu assemblée générale euh, xool fu mu jëm. di aar Sénégal aussi mooy des anciens PCR anciens maires organisation paysanne ay xale ak yu jigéen. Euh, aar Sénégal ne naa la 2014 ci laa demoon sama list gagné ñoom itam yàlla defal maay seen président. Eh, lii ma wax ci Elan ñoom it ñu ngi dajale seen mbooloo toog xaar ëllëg ba xam eh, naka la ñuy eh, dem ak fu ñu jëm ndax nun Sénégal lañu am teyit it expérience bu nu am bëgg mu mu yàqu duñ ko sànni nag fu nu ci doy dañ koy seen waxtaane ko xam naa man buñ càggee sax doom duñ ko nangu waaye dinaa leen ni comme ni ma wax ci côté mairie Taïba Ndiaye rek ah luy jot nag jot nañu waajal suñu retraite lool ñoom buñ ko nangoo comme xale yi tey ndaw xale yi ñoo aaye. nu jàppale leen kuñ ci mën a jiite rek ñu jiite la. am na itam beneen kuréel goo xam ni yàlla def maa ko jiite. mooy euh, fédération Ndaam képp ku sant loolu ci Sénégal. Euh, commencé waa Louga waa tuuba waa Tivaouane Ndaam ainsi de suite ñëpp dañu créer ñetti at ci naaw association yàlla def mu jiite ko. Mm. ah ku xam Ndaam nag xam leen ci daara. Mm. xam leen ci jàng ak yar xale ci fédération bi loolu la ñuy liggéeyee at mu nekk nag ñu dem fële ca euh, sànnoon si fu maam yi coosaanoo ñoo ngi fay defar euh, jàkk defar na njàkk ba pare noo ngay defar daara ja ah fexe nañu ba am euh, oto boo xay mooy dëkkale mbokk bi créer itam benn fonds de solidarité boo xam ni dañuy dimbalante suñu biir fédération yi war nañu mat lu am juróom-ñetti kuréel yoo xay région bu ne département bu ne ña fa sant loolu yëpp daje nañu te loolu yëpp pour que ñu waxtaan euh, ndone li nga xam ni maam yi bàyyil nañ ñu ko te bu ñu demee Touba ñoom ñëpp dañu naan seen maam loolu sant suñ demee Tivaouane ñoom ñëpp fa la ñu dem Yoff euh, kazalik donc vraiment euh, ndono loolu lañ bañ mu réer moom itam noo ngi liggéey di waajal sunu assemblée générale pour que vraiment ñu xam ni ndaam am na lu ñu liggéey démb te bëgguñu liggéey boobu réer. ndeysaan ñun ñëpp nag ñoo bokk dégg loolu xam naa ne famille Gaydel yëpp macha allah. daje bu mag boobu ñu ngi koy waaj ku ne xam ne ne ndaam moom boo ko tuddee sa xel dana dem ci maam Xaadim Rasul mhm. kon cër bu rëy boobu nga xam ne moom la alilo war a dox ak famille bi yëpp xam naa ne daal waajtaay bi soreetu hmm. waaye xam tamit mag tamit ak régime yu bu bees bi am na loo xam ne tamit expérience boo xam ne lu mu gàtt gàtt ndax expérience réew rek lay jariñ hmm. te xale yi tey léegi ñoo ay loolu tamit ban ban wala ban jëm-jëm daal dëgg-dëgg waaw xanaa ñaanal euh, kii di président Diomaye yàlla def mu mu mu réussir. Hmm. ndax itam nag euh, yaakaar lañ ko fale. wax naa la sàng ne la euh, baat kenn ko mayee dañ koy dénkaane. Hmm. te bés dana ñëw ñu laaj la. te résultat nag ci lañuy falaate nit. Hmm. yaakaar la tax ñu jëkk laa fal. waaye buñ la falaatee. daa am loo def bilan boo xam ni da nga ko woon nit ñi loolu nag lañ koy ñaanal euh, ñi ko falit surtout nag ndaw yi ñu jàppale ko bañ ko yàkkamti nag dëgg la bañ nekkee opposition am na lu ñu digge woon ah nit nag mën naa wax lu mu man yéene waaye man-man mooy tax jëf kon nit ki boo ko falee da nga koy may diir mu liggéey nga jàppale ko nag hmm. ndax Sénégal fi mu toll euh, liggéey la laaj ndaw yi summiku liggéey ni kat euh, pal gi suñ pal la waaye waruñoo yaafus dégg naa nag expression bu ñuy wax toog muy dox moom du waxu ndaw xëy na nun ñi nekk mag nga xëy yàlla suturaal na nu mën nanoo toog nun ñi ñoo ko sañ a wax waaye ndaw lu topp toll ci ñax toll ci liggéey warut a xalaat toog muy dox ndax loolu du doxal réew du doxal benn réew rawatina nag réew boo xam ne tey jii lépp dañ ko war a tabaxaat kon vraiment occasion la ñu lancer appel boobu ah li ñu wax ci mbéy mi eh, ñun d'accord nañ ci loolu doon suñu yéene jàppale mbéy bi bay dunde eh, industrie bi ñu defar industrie yu baax créer emploi xale yi am xëy loolu itam d'accord nañ ci fi ñu koy xaar daal mooy décentralisation loolu nu xamagul nag ban jéego la ci def wax naa la la euh, Abdou Diouf def président Abdoulaye Wade def ko président Macky Sall def ko noo ngi xaar président Diomaye ak son premier ministre Sonko ci wàllu décentralisation ndax ñun loolu la ñu gëm loolu la ñu xam kenn mënul développer Sénégal te doolee loo décentralisation kenn mënul développer Sénégal te doole loo doole loo décentralisation kooku daal Ali defe naa tam Ali sa décoration yi tamit defe naa ne macha allah. waaw waaw wallaay ba ñu ciy toll am na nañu depuis le président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade am nañu euh, les médailles xam naa daañu leen ko photo euh, du du mérite. Euh, ak gaynde gi Lion loolu vraiment ñoo ngi leen ci régime fi jaar yëpp la suñu liggéey ba defar tax ñu defal ñu décoration boobu nag ñun moomuñu ko. waaye ñi nu dénk seen baat ñoo ko moom d'abord waa Taïba ndax kat euh, wala fu nee na béy ci say wóom bu yàlla defee ñu dégg ba xam ci Sénégal mm. waa Taïba addu Sénégal euh, euh, topp ci ndax kuréel yi ma jiite yëpp lañu def Taïba ba ba ñu gis ko mm. def ko ci yeneen région yi moo tax li ma am ci turandoo yoo xam ne nii ci côté maire yi rek dañuy am assemblée générale kenn sa soxna mucc ñu ni président Aly Ngouille sama soxna sax am na ci ay turandoo <laughs> loolu nag sant yàlla la macha allah donc vraiment loolu wax naa la euh, décoration yeeg euh, euh, titre d'honneur yi président à vie de l'UAL maire honoraire de Taïba Ndiaye ah wax dëgg yàlla nag ñun fii dañuy sant yàlla jaroo jaadoodul sax ñuy dem di xëccoo ndax wax dëgg yàlla li nu am ak fi nu jaar yàlla suturaal suturaal nu ba léegi dañ koy sant yàlla sante ko nag suñu wéjur dama leen di wax toujours na am na loo xëy du jàmbaaru nit ñi ñaanu mag ñi ngërëmu wéjur yi ndaw lu ma gis nga koy xeeñtu rek dama lay naw ku ma gisit nga xeeb loolu dama lay yërëm ndax amuñu lu ëpp loolu fa tabarakallah amuñu lu ëpp loolu mbokku téléspectateurs yi xam naa ne daal maa ngi bëgg a tàggoo nag ak euh, président Euh, jërëjëf moodu euh, Modou euh, Mbaye Garmi ñoo ngi lay encouragé di rafetlu waxtaan wi di ñaan yàlla nag liñ fi wax mu jur njëriñ waa ba ñu ngi may dégg waa Sénégal ñu ngi may dégg ah li nu wax ci wàllu décentralisation xam naa ni sax bari na luñ ci bàyyi ndax lu ëpp fanweeri ku nu xam rek. ci décentralisation nga xam ci développement local la ñu xam euh, dimbalante nag ak dimbali suñu néew doole yi. Mm. loolu nag a jekk moo taxaw nu dugg ci rëccuwuñ ci dara nag. Mm. donte nag jëlewuñu ca benn am-am waaye li taxaw nu dugg ci daal mooy jàppale Sénégal expérience boobu nag tey la ñu bëgg yéene jàppale ci ndaw yi euh, ndaw yi lii nu fi nu jaar ñu fexe ba euh, ndono loolu bañ a réer li wolof di tudde muse mu mujjee puso mu réer eh, yàlla bu mu leen dal eh, suñu autorité fii nekk coow li bari na waaye nag eh, Serigne Abdou daana wax coow feesul mbuus liggéey daal période liggéey lañu nekk nañu wàññi wax ji yéeneen te jàmm te futtiku liggéey nag loolu kese moo nuy dimbali ba Sénégal defaat beneen jéego Sénégal yéesul ci réew mi ñu bëree bëri dañu ñëw fii jànge ci ñun xool li ñuy li ñu liggéey ñu jël ko yóbbu ko seeni réew loolee nag la ñu war a seet naka la ñu koy mën a jëfe ba at mu nekk ñu def jéego boo xam ni li ñuy yokk wax yokkute Sénégal passé croissance à deux chiffres onze douze treize pour cent jaadu na ndax yàlla baaxee nañu ressource yi rawatina nag pétrole bi ñëw ak gaz bi ñëw war a yokk ci li nga xam ni am nañ ko loolu nag nañ ko sant yàlla xam ne kat Sénégal ak mag ñu baax ñi nga xam ne nii euh, euh, jaar nañ fi tëdd nañ fi seen ñaan mën naa am lu bëree bëree bari moo ci musal Sénégal loolu nag yal na yàlla def euh, mu jëm ci kanam ñoo ngi sant mbokk yëpp di leen sant di leen ñaanal yàlla di remercier encore TFM le président yi Ndour ak toute l'équipe toute la presse coow li bëri na wax ji bëri na waaye nag nañu xam ni Sénégal ñoo ko bokk te ñëpp ay bokk lañu yéenante jàmm Sénégal jëm ci kanam. Sénégal daal ñoo ko bokk émission bu mag baa ngi noonu nag tànneef mu àndoon ak président Aliou Lo doomu tey ba bu mag bile defe naa ne daal ñun ñëpp dégg nañ ko fu mu jaar bi yëpp dégg nañu ko waaye daal li nga xam ne tamit réew mi war na ci sàkkuwaat ba mën caa am dara mu mën a jëriñ réew mi tamit jaar na ci foofu daal ci la leen seen soppe El Hadj Modou Mbaye Garmi nag di tàggoo ak tànneef ba beneen.